yéesu sant na ay taalibeem ñu sóob leen ci ndox ñu ngi jukkee nettali bi ci téere màcc saar ñett ak saar ñaar fukk ak juróom ñett aaya fukk ak juróom ñett ba aaya ñaar fukk saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu nanu bamtu waxtaan wi weesu. benn lan moo xew ci bësu Pentecôte. yéesu yónni na xel mu sell mi mu wàcce asamaan ñëw ci kaw taalibe yépp ca Yerusalem ni mu ko digee woon. xel mu sell mi dugg na ci ñoom te ñu tàmbali wax ay làkk yu ñu déggul woon ñaar bi Pierre waxee yéesu mooy borom bi ak almasi bi loolu lan la tekki mu ngi tekki ne yéesu Kirist mooy sëriñ bu mag bi tuur na deretam ngir mu fey sunuy bàkkaar ba mu mat yéesu moo tax nu mën a dem ca kanamu yàlla mu ngi tekki ne yàlla jox na yéesu sañ ci kaw asamaan ak ci kaw suuf mu ngi tekki itam ne borom bi yéesu mooy buur mu ngi toog ci ndeyjooru yàlla yéesu mooy buuru buur yi ñett lan la Pierre tontu nit ñi bi ñu laajee lan lañu war a def Piyeer tontu leen ne tuub leen seeni bàkkaar te kenn ku nekk ci yéen ñu sëb ko ci ndox ci turu Yeesu Kirist jëf ya saar ñaar aaya fanweer ak juróom-ñett ñeent suñu ko defee lan la Piyeer wax ne yàlla dina leen ko may noonu yàlla dina leen baal seeni bakkaar te may leen xel mu sell mi jëf ya saar ñaar aaya fanweer ak juróom ñett juróom kan moo woon nit ñi ne bàkkaarkat lañu xel mu sell mi moo leen won ne bàkkaarkat lañu yéesu nee na bu xel mu sel mi ñëwee dina nanguloo nit ñi ne bàkkaarkat lañu xel mu sell mi dina leen won itam ne yeesu rek moo leen mën a musal ci bàkkaar ndaxte doomu yàlla la ci bésu Pentecôte bi ñu bari nangu nañu ne ay bàkkaarkat lañu ni ko yàlla waxe juróom ci seen xalaat naka la nit ki mën a nekkee taalibe yéesu nit ki war na tuub ay bàkkaaram te nangu ne deewu yéesu fay na leen. juróom ñaar ci seen xalaat lan mooy dal nit ki nangu ne yéesu mooy musalkatam. ba nangoo yéesu yeesu ki sa musalkat xel mu sell mi dina ñëw dëkk ci sa xol te saasa sa yaram dina doon këru yàlla fii ci kaw suuf noonu bokk nga ci mbooloom ñi gëm yéesu